jëf ya saar bi ñu fa jógee ñu aw yoon wu jaar dëkku amfipolis ak apoloni doora ñëw tesalonik fa yewoot ya am jàngu pool nag dugg ca ñoom na mu ko daan defe ba am fa ñetti bésu noflaay muy welante ak ñoom ci li mi wax mu di leen koo tekki te di leen wax ay firnde yuy wone ne faw almasi bi sonn te dekki mu ne leen yeesu mi ma leen di yëgal mooy almasi bi noonu ñenn ci yawut yi gëm ànd ak pool ak silaas ñoom ak mbooloo mu mag ci gereg yi ragal yàlla ak jigéen ñi am maanaa ñu bari waaye ki ñaan tàbbi ca yawut ya ñu daldi jël ay taxawaalukat ca pénc ma dajale mbooloo ñu yëngal dëkk ba ñu daanu ci kër yeson di wut pool ak silaas ngir dëj leen ci kanam waa dëkk ba bi ñu leen gisul nag ñu diri yeson ak ñeneen ca mbokk ya ci kanamu àttekat ya ñuy wax ci kaw naan nit ñi dëpp àddina sépp agsi nañu fii léegi te yeson na leen dalal ñoom ñépp dañoo bañ ndigali buur sesaar ne am na beneen buur bu ñuy wax yéesu bi ko mbooloo mi ak àttekat yi déggee ñu daldi jaaxle lool noonu nanguwu ñoo yiwi yesoon ak ñi ci des lu dul bi ñu leen batalelee dara bi loolu amee mbokk yi jàllale pool ak silaas ca saasa ci guddi ñu jëm bere ba ñu fa àggee nag ñu dugg ca jàngub yawut ya fekk ña fa nekk ñoo gën a am ay teggin waa tesalonik ndaxte nangu nañu kàdduga te sawar ca di niir mbind mi bés bu nekk ba xam ndax loolu dëgg la am déet kon nag yawut yu bari gëm ak ñu bari ci grek yi di jigéen yu am maanaa ak ay góor waaye bi yawuti tesalonik dégge ne pool mu ngi yëgle kàddug yàlla ci bere it ñu daldi fay dikk di jógloo aka jaxase mbooloo ma noonu mbokk yi yebal pool ca saase mu jëm géej waaye silaas ak timote des fa ñu ànd ak pol nag gunge ko ba dëkku aten bi ñu fa àggee ñu woññeeku yóbbaale ndigalu pool ne silaas ak timote ñëw fekk si ko ci lu gën a gaaw bi leen di nekk ca aten mu am naqaru xol wu rëy ci li mu gis dëkk ba fees ak ay nataali bokkaale yàlla muy werante nag ca jàngu ba ak yawut ya ak ña ragal yàlla tey werante it bés bu nekk ca pénc ma ak ña fay dajaloo noonu ay boroom xam-xam ci mbooloo mi ñuy wax épicurien ak ci mbooloo mi ñuy wax estubisen di werante ak moom ñenn ci ñoom ne fortukatu xam-xam bii lu mu bëgg a wax te ña ca des bi ñu déggee pool di waare xebaar bu baax bi aju ci yéesu ak ci mbirum ndekkite ñu ne dafa mel ni day waare ay yàlla yu ñu xamul kon nag ñu jël ko yóbbu ko ca géew ba ñuy wax ayropaas ñu ne ko dañoo bëggoon nga leeral nu ci sa xam-xam bu bees bii ngay yégle ndaxte sol nga ci suñuy nopp lu ñu xamul dañoo bëggoon a xam nag léegi loolu lu muy tekki ndaxte waa Aten ñépp ak doxandéem ya fa dëkk wax ak a déglu lu bees rekk lañu daan xinte noonu Pool taxaw ci biir mbooloom Areopaas ne leen yéen waa Aten gis naa ne farlu ngeen ci diine lool ndaxte bi may doxantu di seet seeni màggalukaay gis naa ci benn bu ñu bind lii yàlla mi ñu xamul li ngeen di màggal nag te xamuleen ko loolu laa leen di xamal yàlla mi sàkk àddina ak li mu ëmb lépp moom mi boroom asamaan ak suuf du dëkk ci néegu màggalukaay yu loxooy nit defar du jariñu it ci loxooy nit mel ni dafa soxla dara ndax moom moo jox ñépp bakkan ak ruu ak lépp ci kenn nit la sàkke xeeti àddina yépp ñu dëkk ci ñeenti xibla yi fekk àppal na xeet wu nekk jamonoom te rëdd seen diggi réew yàlla def na loolu ngir ñu koy wut ci yaakaaru daj ko ci làmbatu fekk sax soriwul kenn ci nun ndaxte ci moom lañuy dunde di ci jëf te nekk ci ni ko ñenn ci seeni taalifkat dëggale naan nun ñoo di aw xeetam kon nag bu nu nekkee xeetu yàlla noo gëm ne yàlla mel na ni nataale wurus xaalis mbaa doj yu nit defar ci xereñ mbaaxel xel te jamono yu wees ya yàlla toppul ñàkk xam googu waaye léegi koo mën a doon ak foo mën a nekk yàlla santaane na nga tuub say bàkkaar ndaxte sàkk na bés bu muy àttee àddina ci njub dénk ko nit ki mu tànn te firndeel na loolu bu wóor ci li mu ko dekkal ca néew ya bi ñu déggee nag muy wax ci mbirum ndekkiteel ñi dee ñii di ko fontoo ña ca des ne ko dinañu la déglu ci mbir moomu beneen yoon noonu pool génn ci seen biir moona am na ñenn ñu taq ci moom te xamees na ca danis ku bokk ci mbooloom areopaas ak jigéen ju tudd damaris ak ñeneen